Grand Badiane dama la ni la homme d'affaires bu mag la woon bu mag boo xamante ni xaritu Abdoulaye Wade la doon indi ay bailleurs indi ay milliardaires fii ay milliardaires saoudiens ku nekk la doon indi fii xam nga entre guillemets am na si détails yoo xam ne bëgguma ci sotti mais li ma la bëgg wax mooy Badiane lañ ko jàppee parce que amoon na ay suuf ñu nangu ko c'est normal mooy enrichissement illicite bi mooy tract tracté bien mal acquis bi ñu doon def si dossier Karim Wade Badiane moom jox na ma sax ay photo bëggoon naa ko indi benn instant aussi non grand jarul xam naa si ay émission live wala yooyu naa ko wane quoi parce que may na ma ay photo ci kaso bi mais ko fekk mu dindi benn rein jabet bañ ko yëkkati di teg te juge bi ñaari yoon juge bi bàyyi na ko procureur defaat recours nañ ko téye bañ ko yëkkatee ko teg mënatul dara léegi man dama ni Badiane li mu def donte fekkee ni dafa def erreur fay na erreur am quoi parce que sept ans ku ko tëdd ci loolu ñu nangu sa bien yëpp mais na quoi après nañ bàyyi nit ki quoi haine yooyu amul njariñ jàpp ni kenn warul dem kaso ku def ku def naka suul noonu aussi dañ la war a teg kaso mais est-ce que tamit doyul quoi loolu sept ans nga tëddi ko ci ba feebar ba nga yëkkatee ko teg loolu bokk na si cas Badiane ak kaa kamara moom bokk na ci li tax ma ni man su ma toogee yeneen semaine waxuma ak presse bi du ma nelaw du ma kiit ak sama conscience parce que dañ ma yóbbante te yóbbante àq la

sans sama médecin moom prescrire na ma lii ak lii nga war a lekk waroo lekk lii waroo lekk lee les conditions yi ñu nekkee nii ak Covid bi kaso yi dañ ko tëj kaso yi ñu ngi ko tëjee loolu dafa tax benn lekk du dugg benn lekk du génn maanaam kaso même visite amul alors je suis obligé ma lekk lekk kaso bi te loolu méngoowul ak man sama régime léegi loolu nag moom mu yóbbee nag ma commencé woon nag di dam am ay malaise ci kaso bi te bi ma dalee wax dëgg yàlla bi ma ko waxee sama jabar wax sama avocat taxaw nañ ci ba nga xamante ni ñoom Antoine waa nitu dëgg valeur taxaw nañ ci ba alhamdulilah dañ ma yóbbu avion spécial dañ ma yóbbu avion spécial loolu en fait xam nga man jullit laa quoi te bëgguma wax lu mu wóor li ma xam daal mooy bi coow li bare bi ma affaire yi commencé sonal dëggantaan ba ñoom ñu jaaxle coow li bare yóbbu nañu pavillon spécial ba ma demee pavillon spécial dañ ma doon toppatoo comme buur dañ ma toppatoo bu baax tey loolu bokk na ci li ma may ma mën taxaw nii tey taxaw di wax ay perfusion tout le temps yu bare bari yoo xam vraiment dañ ma doon toppatoo xam nga chaque mois ñu def prélèvement de sang di ma toppatoo dañ ma doon toppatoo waaw wax dëgg yàlla sama médecin ko bàyyi dugg ci biir pavillon spécial ñëw di ma di ma di ma di ma di ma toppatoo. voilà benn question Karim ginnaaw bi ñu nuyoo ba noppi. Hmm. Euh, jot nekkoon en détention hmm. am benn question boo xamante ni tuddee nañ

mooy bi ma feebaree nekk ci tëdd principal ay kilifa ñëw nañ fa pour jàppale ma ci feebar bi seen image ak ni ñuy doxalee Sénégal ak seen koppar dalul sama xel moo tax jëluma ko Sénégalais yi nga xam ne yi ngay dégg diaspora bi nii ay Mati Trapo mag ay ñoom Mbayang Dramé ak ñii ay nitu valeur ñoom Antoine Tourpin ak ñii nii ñoom ñu créé ay compte litchi Sénégalais ñoo def juróomi dërëm ñaar dërëm jël ma yóbbu ma Allemagne faj ma ñooñu ñoom ñoo ma faj ñoom ñoo ma faj donc loolu la quoi bëgguma woon laal xaalisu politique bëgguma woon laal xaalisu politique parce que politiciens yi doyuñu ma seen dara doyuñu seen dara doyul homme politique bu Sénégal yi nga xam ñoo nekk ci pouvoir bi ak ñi nga xam yàgg nañ ci nekk ak ñi xam jot nañ màcc tàngalu buur doyuñu ma waaw micro micro salaamaaleykum Abdou Karim Seye mm-hmm, alasi euh, maa ngi gis Mouhamadou Mamankouré journaliste la Sene News euh, su ma la gisee tey damay xam sa door bi mu jugee parce que

mais dañoo gis Sénégal jusqu'à présent système boobu moo fi nekk est dina yomb ci ah yàlla rek moo xam ne yaakaar naa xeexu du du man kese xeexu mouvement la xeexu activiste yu bëri ñu ngi fi yaa ngi gis ay mouvement yu bëri bëri ñu ngi fi ñun ñu ngi ci di ci xeex. waaw donc ma profité sax ma profité si occasion bi sax remercier ay gilet rouge xam nga frappe Y en mouvement yi nga xam ne ñu doon jàpp ci combat bi ay ñoom ay ñoom sama ji FNP ak euh, Mola Morgan vraiment maa ngi maa ngi remercier ñëpp vraiment ñi nga xam ne LD Debout ñëpp maa ngi leen remercier baax a baax ci taxawaay mais xeex bi moom yàlla rek moo xam en tout cas dañuy xeex fekk ñi ngi mën dañuy xeex te duñu mës a taxaw ci xeex dañ def suñu kéem tolluwaay kattan di xeex ba keroog ñu am gain de cause xeex moom bu ñu taxaw fekk amuñu gain de cause njël moo dañu lancé question bi euh, euh, euh, mais taxawu nañ ma bu baax a baax taxawu nañ ma bu baax xam nga soutien d'habitude dañu bëri dañu yaakaar ni mooy li feeñ ci biti nii rek quoi am na si ñoo xam ne li ñuy def dañ koy def ci suuf imaam yi bari na imaam yi bari nañu parce que man damay ànd ak dama bokk ak Cheikh Omar Diagne ak Adama Mbow ñoom ñu ngi maa ngi nuyu ñu ngi si salle bi sax ñooñu ñu dañoo créé ay comité de défense des valeurs morales collectif noir l'homosexualité ànd sàmm jikko yi c'est que man ñooñu lay àndal moo tax man ni sénégalais bu ñu Karim day saaga mooy xooluñu quoi ñun ñooñu la ñuy àndal de tout ce qui est valeur nitu dëgg valeur lañ ci teg valeur tout ce qui est valeur ñi koy dox ñi koy xeex di xeex pour mu samp Sénégal yëpp ñun ñooñu la ñuy àndal donc ñooñu taxaw nañ ci xeex bu baax a baax a baax mais du ñëpp ñooy fësal du ñëpp ñooy fësal xam nga am na ñoo xam dañuy nekk ci suuf am na ñoo xam ci kaw la ñuy nekk di wax am ñoo xam dañuy dox mais suma fi nekkon di ko lim du jeex maa ngi remercier en tout cas imam Alioune Badara ndaw imam yi nga xam ne jàpp na si ñoom ñoom vraiment c'est bon micro mhm. waaw mais xam nga xam nga contexte bi ñu nekkoon euh, dafa bëri woon scandale dafa bëri woon coow lu nekk ñu ngi si woon xam nga ak feebar bi Covid bi xam nga donc su ma amee chance wu quelque rappeur ba quelque artiste rek taxawu ma rek alhamdulilah quoi mais am na taxaw nañ na bu baax a baax a baax a baax. waaw waaw wala lërikal booy star la star bu mag la xam nga lu tax. sérieusement damay wax parce que man xaw ma woon man Lirika yàgg na fii ci ci kaw yi mais bi ma ko seetaanee laa gis ne dëkk booy bi star la ah. mais dama koy remercier infiniment xam nga parce que boo yooyu ñoom dañu instant dañu téye benn benn benn am ñoo leen topp di bàyyi jàppale ñu ci xeex yi ñoom dañu ñu mën a jàppale ci jeunesse sénégalaise parce que instant hip ñoom ñoo ko yor seen i loxo rapport ñoom ñoo ko yor seen loxo ñoom ñëpp ñoo ko yor c'est bon. Hein? bon s'il y a plus de questions c'est bon. non ça sera pas en français ça sera en wolof tout sera en wolof. benn journaliste uh, Walfadjri posé woon na la moo tax doo joxe ay statistiques waxal ñu yow tu préfères parler de la réalité parce que statistique la ñu yàgg ndax. waaw sank sank nak journaliste Walfadjri dafa posé benn question ne duñ joxe ay statistiques quoi lu tax duñ joxe statistique dañuy attaquer dañuy attaquer ça à dire ñun moi je pense que xam nga ñun suñu taxawaay ci Sénégal ñun ay e soldats lañu quoi nous sommes des soldats ñun nous sommes des soldats yo xamante ni ñun c'est-à-dire pour pour gattal gàttal rek pour leeral Sénégal actuellement ñun d'abord bla ñuy wax dara. balaa ñuy wax dara ci base bi la ñuy njëkk wax ko c'est-à-dire li olof naan boo bëggee rey as réew boo bëggee rey euh, as lëf da ngay dem ca ndey ja ñun dañu faussé départ bi départ bi la ñu faussé léegi nag mënuñu ah depuis cinq ans ba Abdoulaye Wade ba Macky ñu ngi nekk ci problème électricité problème mu ndox problème mu courant comme ni ñu ko waxee problème mu problème mu tey littoral yaa ngi dégg suuf bi problème mu euh, pétrole yooyu yëpp ci lañ nekk du dañ chaque jour c'est la routine chaque jour dem len ngeen xol depuis 5 ans ba tay xol len Abdou Diouf Abdoulaye Wade li ñu doon jooy ba tay mom lañuy joy Yota changé wu ci et pour man il est temps ñu xol fan moo lan moo tax ba légui ñu nekk ci problème yooyu non lutax à chaque fois lutax lutax à chaque fois ñuy tourner autour rek quoi c'est la routine lutax tax loolu xam ngeen lutax parce que Sénégal amna Cheikh Anta Diop borom xam-xam la Sénégal amna serigne sëriñ yu mag a mag ay nitu diine la Sénégal ba légui ni ñi gëm yalla ragal ko ñoo yoragul pouvoir chrétien bu gëm yalla ragal gëm diineem yoragul pouvoir jullit bu gëm yàlla ragal ko ragal yàlla ragal diineem jàkkaarloo caisse noire xam ne lii al askanam bañ dindi caisse noire teg ko fële ragal yàlla di xool argent contribuable xam ne lii alalu mbooloo ragal koo laa loolu iman moo koy def ci mooy ragal yàlla te loolu li ko waral mooy mu nekk koo xam ne day waat ci alxuraan fekk amuñu président buy waat ci alxuraan wala muy waat ci bible di chrétien wala musulman bu ñu ko amul mënuñu xaar du ma nekk ci détail yooyu chaque jour li ñuy jooy la ñuy jooy duñ jug ci courant duñ jug ci ay détournement duñ jug ci ay enrichissement enrichissement illicite yi ñuy waxal duñ jug ci pétrole pétrole bi ñuy partagé c'est-à-dire jug littoral littoral di wax ni yàgg na Macky Sall bi mu nekkee premier bi mu nekkee premier ministre jamonoy Abdoulaye Wade Abdoulaye Daouda Diallo